jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi ko sifur lamb ak ci actualité lamb te di ko sifur ci télévision mag bi nga xam ne moo di Bawal TV vendredi le 23 octobre ci atum ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekk di fay am solo sunu lamb door le vainqueur daañu ko xam samedi bi ñu jëm fin de ki nga xam ne ni moom moo di Alioune Sarr le 31 bi ñu jëm lay doon waaye moom moo di Boun Daouda Diop moom la mu xam le mooy as bi wax ne nañ ko yokku ci li xam ne moom moo di retraite buñ ko defee bu dafay nekk li xam ne ni moom moo Gaston Mbengue accord de combat bi ñu wax ci diggante Lac de Guiers xam ne ni moom moo di Eumeu de Guiers xam ne moom moo di Eumeu de Guiers xam ne di moom moo di quarante millions yooyu waaye lépp itam ci teewaayu waaye ki nga xam ni moom moo di Libidor bu passé nga xam ni moom moo di général daal ak Abdou Aly Ndiaye ñoom ñaar ñooñu ñoo tax kii di Lac de Guiers 2 jël boobu fayee li nga xam ne moom moo di 40 parce que xam ne daañu moom moo Balla Gaye 2 ki nga xam ne nii moom moo di Bombardier mi nekkoon roi des nga xam ne nii moom moo di roi moo ñëwoon foqati ko ci loxoy Balla Gaye moom Balla Gaye 2 xam na ne combat bu njëkk ba ak bii day du benn moom ki nga xam ne nii moom moo di Bombardier moom itam la mu xam ne mooy combat bi doxoon ci digganteem loo xam ne ni xarañte la moom moo di Balla ne ko dooma ko yóbbul ne ma ki nga xam ne ni moom moo di Buuse benn avance boo xam ne ni jot na ko te na ngay di xaar yéen ñi ko seetaan lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision mag bi nga xam ne moo di Bawal TV du ne kenn bu ma topp waaye ku joy dëpp la ko dalee Thiès Kombal Bambay Altu Ndangal Max Yow Touba Toul Kabak Lañaar Kër Dama Kër Seer Jàllu Ndul ak Patar Kiribe Yaasin Sambe Ngewel Sambe Kool Darak Daaru Xafoor Siyaare Sëriñ ba dellu siwaat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta ak Jolof ñëpp actualité lamb la ñuy suivre fii ci biir ba Bawal TV Aliou Ngom borom Touba Toul